ban wax la la sa waajur bu góor ma sa wax boo xam ne ba tey yaa da nga ko def njëgënaay yaa ngi koy doxee parce que da ci gis njëriñ. moom mooy li may def nii ah, mooy muñ vraiment muñ euh, je développe yenn saa résilience boo xam ne même moi je suis un peu étonné euh, coow li mën na bari walla yenn euh, mbir yi bari mais bon je dis lii du dëgg dëgg dina mës a feeñ yenn saa yi na xaw a yeex tuuti mais bon en tout cas sa fini par euh, par sortir au grand jour mooy li nga wax léegi on m'a de tout moom moom Pastef la ñu njëkk a wax mooy financé Pastef maintenant on dit que non c'est pas vrai c'est l'inverse alhamdulillah parce que euh, c'est un exemple que je donne c'est pas autre chose